voilà mu ngi noonu troisième combat de soirée micro central bi dégg ngeen ko mu joxe turu ñaari mbër yi nga xam ne ñoo war a jongante troisième komba bi war a dox ci diggante Tapha Leer numéro 2 bu Jàmbaar Wrestling Academy ñu gis Papa Sow le leader bu écurie boobu daal di koy indi mu war a jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy yoole yoole ñaari mbër yaa ngoog yoole yoole à gauche yu bari Tapha Leer à droite mu ngi noonu troisième combat de soirée journée petit production ci diggante Siteu bu Ngor ak Caatu Rëbës e, fii ñuy waxe ak sax Caatu Rëbës moom mooy bàkku noonu ànd ak waa Rëbës yëpp ñu gis ki jiite troupe nekk. Double Moteur le lieutenant de l'écurie Rebeuss voilà à droite voilà arbitre maa ngi wax ak ñoom sifflé na génn seen diggante yoole yoole lal na benn Senghor dafa Leer moo féete à droite Tapha Leer numéro 2 lewto bi xaw na bar Tapha Leer mi dafa mel ni kuy dóor ñëw ndax en général lewto bu baree rek mbër mi day xool ci say déplacement bu ko gaawalee boo yéexee tuuti mu dal sa kaw mais yoole yoole cokkaas waaye demul dafa leer mu nga fa mu nekkoon ba léegi di ko xaar wàcc na wàcc na ci tànkam jiital tànk càmmoñ jël na ko Tapha jël na tànk ba Tapha jël na ko daan na ko Tapha jël na ko daan na ko yomb na ba dee Tapha jël na ko daan na ko li Ouzin di wax bien fait xaw ma vite fait bien Vite fait, bien fait. mooy vite fait bien fait dafa cokkaas mu jël tànk ba ndànk. oh dafa leer. mbër bi gaaw na. waaw combat bi boobu dama boobu doole. wéy mu billaay walaay Papa Cissé mi ko indi moom laa soxla. di sant bu baax a baax waa Diourbel billaay walaay di sant bu baax a baax waa Diourbel. ku mel ni Siteu Siteu sama mag maa ko sant bu baax di ko gërëm. di sant sa confiance. di sant Papa Sow Papa Sow dama tey dama indi bàyyi lépp indi ma ak sama coach Lato. billaay walaay bi ma génnee tey parcelle ñëpp ñoo génn. moo tax combat bi nii rek la mën na demee barki yàlla instant bi daal. maa ngi sàkku waa Diourbel nag loxo ñu jàppale bu baax a baax a baax ndax tey kaar dafa manqué gars yu bëri ñëwuñu bilaay loolu métti na ma trop maa ngi sant gars yi yëpp yëpp yëpp yëpp di sant sama mag yi di sant ci mel ni nee ak jeeg ñoom am na seen fay ak say na bu bilaay walaay tey añeeg yëpp ñoo ko toog seen xaalis bilaay walaay kontaan naa trop trop si ñoom ki kontaan bu baax a baax a baax di woo kontaan sama nijaay moo fa jàpp na si combat bu baax ñaani egsi di sant ma doomu ndey Aliou guddeeg bëccëg bi laa walaay dama jaaxal si combat bi di sant Moussa di sant ñëpp daal bi laa walaay di wax nag Papa Cissé la pare maa ngi si kawam Papa Cissé la pare si kawam